jërëjëf salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki àdduna mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ah, ni ñu leen daan nuyoo saa su fii ci Sénégal Buzz 221 nu ñu leen koy waxee rek saa su ne ñoo leen di génneel ñenn ñi nga xamante ne yéen ngi leen di fii ci Sénégal Buzz 221 waaye tey dañoo ñëw fii nga xamante ni moo di parcelle bu ñu ñëwee parcel nag ñu ñu fi war a xool sénégalais dinañ ko xaar bëri na waaye ma ñëw seet si ki nga xamante ni tey mooy Go Faye Go Faye suñu ko waxee c'est le responsable politique de la mouvement réaction yaakaar naa mu nekk parcelle dekk ndaw loo xamante ne dëkk na fi di ci dox li nga xamante ni tey moo di ay jéegom di yëngu ci li nga xamante ni tey moo di wàllum politique mbokk yi tey moom laa leen seet si lan fi nga xamante ni moo di Parcelles Assainies dama koy bàyyi rek mu nuyoog ñi nga xamante ni moo di mbokki internet Sénégal Buzz 221 ngi lay nuyu di la siyaar ñu ngi leen di fay euh, di nuyu waa Sénégal 221 di nuyu waa Parcelles Assainies di nuyu waa Dakar di nuyu waa waa Sénégal mm-hmm. leen remercier bu baax si invitation bi mm-hmm. Mm-hmm. jërëjëf du ñu remercier bu baax a baax ci li nga xamante ni moo di invitation bi moo tax bu ñuy door dañuy door ci li nga xamante ni moo di actualité yaakaar naa fa mu nekk nii kenn mënul door te dooroo ci li nga xamante ni moo di la Covid 19 nekk ci réew mi lëmbe ko waaw tey bu doonoon tey li nga xamante ni moom nga ci suñu rek mu doon sa message lan lay doon. waaw d'abord di commencer par euh, di ñaanal waa àdduna bi yëpp. Mm-hmm. particulièrement ak waa Sénégal. di ñaanal sénégalais yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci diaspora bi parce que foofu la feebar bi gën a amee ay taux de mortalité yu kawe. donc euh, feebar ku ne gis na ko dafa ñëw bett ñëpp. Mhm. bett àdduna bi parce que tey même les grandes puissances euh, feebar da leen bett ba seen économie mi ngi mi ngi wàcc. Mhm. parce que système sanitaire mondial bi wane na seen fay mhm. le système euh, les modèles économiques wane nañ seen fay tey la santé tey est aux abois. je pense que Covid 19 bi tey wane na loo xamante ne ñu bëri xamuñ ko woon ci ci àdduna bi. donc euh, maintenant ñun au Sénégal aussi je pense que c'est l'occasion de remercier le ministère de la santé. ak l'État ci effort yi ñu ciy def. parce que loo xamante ne jaaxal na les grandes puissances bu fekkee Sénégal mu ngi koy continuer jusqu'à présent je pense que c'est a c'est à saluer. Mm-hmm. donc di ci euh, sant yàlla bu baax a baax a baax. di profiter di wax ne yàlla am na lu ñu beral te bu ñu génnee ci feebar bi ñun sénégalais ñun africain war nañ xam ne on est un peuple béni te war nañ mën a repenser suñu économie xool naka la ñuy def ci nouvel ordre mondial bi ñuy wax l'Afrique taxaw ci position boo xamante position bu baax la mm-hmm. nouvel ordre mondial boobu noonu ci laa bëgg sax ñu door ci ndaxte loolu yaakaar naa sénégalais fu mu nekk nii bu ñu paree pour génn ci covid 19 bi gars yi pare nañ pour dugg ci loolu ndax loolu loo xamante ne dina arranger réew mi waaw xam nga en fait euh, dëkk moom boo si nekkee da ngay ànd ak jamono parce que dëkk euh, moom kese mënul dem dañu nekk si monde bi nga xamante ne monde mondialisation la à dafa am interaction entre les différentes économies du monde mhm. depuis que le monde monde day am ñoo xamante ne c'est les c'est les peuples dominants ak ñoo xamante ne c'est les dominés mhm. am na ñoo xamante ne dañuy bëgg chaque fois jiite économie mondiale bi di prendre les décisions nekk les maîtres du monde am ñoo xamante ne tey seen position permettre leen loolu maintenant day am ay choc yoo xamante ne bu ñu ci génnee de am reconstitution des choses pour yeneen yeneen positionnement ñooy am mu ngi mel ni bi ñu jógee si euh, comment la guerre mondiale bi ñu jógee si crise économique des années 30 ainsi de suite day am positionnement yoo xamante ne yeneen dëkk yu bees dañuy émerger euh, rapport de force yi change je pense que foofu la ñun Afrique suñu peuple africain yi war a booloo nga xamante ne nañ xoolaat suñuy suñuy xam mhm. exactement là où le monde ñu jëm fa xool naka la Afrique di positionné aussi position baax si nouvelle ordre mondial boobu terme bi nag day niroog terme maçonnique wala yooyu mais c'est pas ça mhm. c'est une conception économique boo xamante ne day tax nit ñi xam ne ñii ñoo jiite àdduna bi ñii ñoo si topp les décisions ñoo ko jël parce que nag quoi qu'on puisse comme ça que le monde c'est ça que le monde fonctionne ah. ba taxit mbokk yi yaakaar naa ne message bu am solo la boo xamante ne na dina jëriñ mbokki internet yi nga xamante ne tey ñoo toog di ñu bàyyi xel ah waaye dañuy ñëw tuuti ci li nga xamante ne yaakaar naa mooy plateforme bi nga xamante ne lancé woon nga ko pour le développement des Parcelles Assainies plateforme boobu fan la toll actuellement. bon en fait euh, nous avons créé en 2009 ay mhm. citoyenne. Mhm. en fait bi ñu koy doog a dañu seetlu woon ne. jeunes yi ñu si bëri ils étaient désintéressés de la chose politique parce que nag comportement yi homme politique yi doon am moom moo taxoon ñu bëri euh, ils étaient un peu dégoûtés parce que mm-hmm. politique dañ ko assimilé woon ak fenn naxante sàcc alalu réew mi enrichiru mm-hmm. après berru quoi mm-hmm. alors que l'essence même de la politique c'est pas ça quand tu t'engages en politique c'est pour servir ta communauté c'est pour servir ton pays ku si mel ni man mais engagé aussi politique c'est parce que j'ai fait l'université bénéficié wu de de bourse pendant 5 ans 6 ans yi ma fa def état du Sénégal den ma fay. donc bu ma demee ba tey am compétence yoo xamante ne université laa amee ma dem demee ba mën a am loo xamante war naa ko mën a delloo suma dëkk dama war a si politique ndax samay compétence tey bu ma toogoon si nga xamante ne c'est des de décision war naa mën a jariñ suma réew à ma manière donc loolu moo ñu si dugaloon donc de ce fait si lañ créé importance implication ci gestion localité bi. par rapport ak implication ci gestion dëkk bi. parce que euh, ñun Afrique ñun Sénégal on est des peuples jeunes yi nga xamante ne 60 à 65 pour cent de la population est jeune. te jeunesse boobu euh, dafa war a nekk jeunesse bu consciente bi nga xamante ne dinañ mën a ëllëg ñu mën a compétir au niveau international loolu moo nekkoon sunu sunu ñu taxawal ko en ba 2014 ñu dem ci élection locale 2016 ñu dem ci ma nekk tête de liste département de Dakar ci élection législative yi. ba léegi ñu ngi ciy góorgóorlu. mais lii de de en tout cas moom mooy ñu sensibiliser les jeunes pour ñu nekk ay une mm-hmm. système responsable yaakaar naa wax nga ko comme ni nga xamante tey politique noonu la tëddee léegi nii pour woo nit ñi war la nga wóor ndaw ñi ci sa bopp ndax dina yomb ndax ni politique mel léegi. Hmm, bon je pense Euh, jeunesse bi léegi am na benn benn bu commencé am. Mhm. man personnellement je le je parce que tey foo tourner dinañ la ne non jeunes yi dañu war a engagé wu en politique ainsi de suite ainsi parce que mhm. nit léegi dinañ jël beaucoup plus d' information te dañ leen nax leen naxati leen naxati leen. du mhm. dëgg surtout nag homme politique classique yi suñu yaay lañ doon jaarat ay mbootaay ak ainsi de suite di leen naxee ay xartum mais ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo seen doom yi te yeewu nañ je pense que c' pas quelque chose de difficile il suffit d' être pédagogique et didactique c'est-à-dire avoir une bonne communication mm-hmm. parce que booy wax ak ko xamul da ngay wàccee waxin bi expliquer ko si en français facile ou bien en tout cas terme yoo xamante ne terme yu mm-hmm. yomb la quoi du dëgg mm-hmm. boo ko expliquer rek kenn doful ku nekk bëgg na lu baax boo ko expliquer na ko dama lay jéem a andi si si lu baax day day nangu te je pense que ñu jàng ñu jàngul jeunesse bi yëpp fi mu toll nii bëgg nañ changement si si dëkk bi quoi. Mhm. loolu lépp yaakaar naa pour yokkute li nga xamante ne wala dimbali pour askan wi la mais bu ñu toogee ba benn message gis euh, le président de la mouvement réaction def benn allié ak Sonko allié boobu noonu lan moo ko waral lan la <laughs> parce que ñu bëri ñu ngi si posé question bëgg a bëgg a xam. effectivement mhm. donc c'est avec plaisir que je vais répondre à cette question. Mhm. parce Euh, si élection présidentielle yi passé mhm. ñun mouvement réaction on tient à notre indépendance d'action et d'idée mhm. parce que euh, boo amul indépendance doo mën a jël say propre décision mhm. euh, on est très démocratique dans le mouvement lépp lu ñuy def dañ siy waxtaan donc Ousmane Sonko nekk un Sénégalais comme ñëpp nekk quelqu'un qui est venu nekk une révélation avec des idées nouvelles avec un esprit panafricaniste ak esprit protectionniste di défendre les intérêts et eh, du Sénégal et de l'Afrique d'après nu muy waxee euh, mu nekk koo xamante ne il il réfléchit en géostratégie yi africain c'est-à-dire xool naka la ñun africains yi ñun pays africains yi di uniro boole suñuy doolee pour mën a nekk au niveau de euh, si benn niveau boo xam ne dañu mën a compétir si si si si euh, économie mondiale bi si idée yooyu sax la waxee si affaire de indépendance monétaire c'est-à-dire ñu génn si franc CFA bi xool suñu propre monnaie parce que effectivement c'est important souveraineté monétaire c'est important si si si si dëkk boo xoolee si am nay pays africains yoo xamante ne comme l'Algérie la Tunisie ah ainsi de suite le Maroc Madagascar ainsi de suite ñoom ñëpp dañu am seen seen indépendance euh, seen monnaie seen monnaie la ñuy doxee mhm. te boo xoolee ñoom ñooy économie yi nga xamante ne ñoo gën a plus ou moins solide mhm. du dëgg mhm. donc am na si ñoo xamante ne par la guerre Algérie lañ amee seen indépendance seen souveraineté monétaire mhm. donc si côté boobu ñu gis ne ak yeneen yi nga xamante ne mu ngi ko doon kaas gabegie bi am si dëkk bi optimisation des ressources niche fiscale yi en tout cas beaucoup de sujets yoo xamante ne mu ngi ko doon développé yoo xamante ne dafa nekk en convergence ak ñun suñuy idée on s'est dit pourquoi pas. Et puis là, on est indépendant, on ne dépend de personne. Mhm. On a choisi objectivement, on a vu qu'il avait le profil pour diriger le Sénégal. Mhm. On a voulu l'accompagner, c'est aussi simple que ça. Mhm. c'était une alliance de circonstances, élection présidentielle moo taxoon ñu allié. Mais toujours est-il qu'on est toujours indépendant. kon yaakaar naa élection présidentielle yooyu noonu moo allié mais je pense que actuellement yéen a ngi liggéey. Euh, non liggéey ñu moom mooy li ma la wax élection présidentielle lañu jàppale woon le candidat Sonko Sonko il a son parti nous on a notre mouvement bi nga xam ne man maa koy diriger. du mhm. dëgg mhm. donc euh, mais sinon euh, liggéey ñu on nag suñu coalition. Mhm. bu ñu demee si élection présidentielle yi on a eu de bons résultats fii nii. donc peut-être élection locale aussi je souhaite que la coalition continue parce que l'opposition moom mu ëppale woon fii. majorité présidentielle bi donc je pense que si on continue comme ça élection locale wala yeneen élection bu fi amee bu fekkee on est dans de bons termes euh, l'histoire peut continuer et ce sera une belle histoire mhm. kon mën nañ xaar daal Go Faye d'ici d'ici un an daal mouvement réaction daal dama fekk ji Sonko carrément ñoom ñaar ñu allié toog liggéey non Sonko si ban cadre élection présidentielle wala élection mhm. locale parce que dañu fiy gis souvent genre yenn mouvement yoo xamante ne dañuy débuté ne tey mouvement politique mais tôt ou tard dañuy gis ñu finiree ci benn euh, mag ñoom seen bos day waaw bon en fait moo tax ma ne si ban carte c'est-à-dire bu nekkee élection présidentielle bon on ne sait jamais la politique elle est elle mm-hmm. tout peut se passer ñi Sonko génnee si 3 4 ans la créé PATEM 2019 mu dem élection donc keneen mën na émerger. Mm-hmm. avec de nouvelles idées yoo xam ne ñoo gën a pertinentes ñu Sonko on ne sait jamais la politique elle est dynamique. Mm-hmm. du dëgg pas être figé en politique maintenant. Sonko c'est quelqu'un qu'on et c'est une valeur sûre de ce pays. Mhm. donc bu nekkee élection présidentielle s'il continue dans sa logique pourquoi pas ne pas le soutenir on sait jamais. Mhm. donc bu nekkee tamit gis nañ leneen loo xamante ne c'est day orienter leneen on le fera mhm. d'accord maintenant pour ce qui s'agit des élections euh, locales. mooy élection mairie moi je pense que c'est pas Ousmane Sonko qui va le maire des Parcelles Assainies. Mhm. du Macky Sall moo ñëw nekk maire Parcelles Assainies du Idrissa Seck du Abdoulaye Wade. il faut qu'on ne tombe pas dans le piège euh, des grands partis politiques qui qui qui veulent d'habitude que euh, les leaders nga xamante ne à l'échelle nationale ñoom la toog 3 4 ne seen coalition lii la. après ñu ñu balancer ko ci commune yi. Mhm. alors que Euh, pour être maire commune il faut nga xam commune bi màggee ci commune bi dëkk fa et que tu les compétences. Mhm. les les coalitions de circonstances yi nga xamante ne moom la les grands partis du politique yi def mhm. du refléter eh, la voix du peuple mhm. parce que y a pas de démocratie en fait mhm. par rapport ak euh, mode d'élection bi nga xamante ne moom la Sénégal di appliquer euh, ça ne reflète pas la voix du peuple c'est pas une démocratie en fait avec ce mode ce type de ce mode d'élection la démocratie n'existe pas en fait parce que tey boo xoolee euh, bu nekkee tey euh, si si buñ ko jëlee si échelle administrative mhm. Sénégal mhm. da ngay gis ne poste yi nga xamante ne c'est dañ ko nominé dañ ko dañ ko nommé autant pour moi moom euh, moom moo ëpp yi nga xam ne président di nommé par exemple les préfets ainsi de suite les ministres ah ainsi de suite même si député yi sax da gis ne président yi tànn c'est-à-dire Euh, ni ñu koy defee du refléter exactement la voix du peuple muy élection législative muy élection locale muy lool. Mhm. donc c'est-à-dire que moo tax les bon personnes du leen mettre euh, euh, aux bonnes places. Mhm. du dëgg donc il y a beaucoup de choses à changer. Mhm. et je pense que ci logique boobu sax la gaa nit ñi di waxtaanee si mode de scrutin bi ak ni ñuy tànnee maire. parce que boo xoolee ni ñu doon njëkk a tànnee maire. dafa di woon dafa am ñaari liste proportionnelle ak majoritaire mhm. bu ñu demee ba si biir nag après les conseils liste bi nga xam ne moo jiitu ak beneen liste bi bu ñu leen boolee conseils yi ñoom ñooy tànn maire foofu dafa am ay dil yu bëri mhm. c'est-à-dire ki nga xamante ne peuple mën na moom la bëgg mhm. mën na sax bañ nekk maire in donc moo tax ma naan la ça ne reflète pas la voix du peuple mais bu fekkee léegi les gens je pense que c'est presque validé ki nga xamante ne mooy jiitu si liste bi mhm. moom mooy nekk maire si gox bi mhm. loolu au moins mhm. nit ñi bu ñuy tànn dinañ xam ne ah lii kat naxuñu parce que diw bu jiitee moom moo nar a nekk suñu maire alors bu njëkk ba c'était un bluff. du dëgg donc y a beaucoup de choses à corriger si mode de scrutin bi façon bu ñuy defee élection yi. Mhm. pour que la voix du peuple s'entende vraiment. Mhm. se fasse entendre autant pour moi vraiment. pour que ñu mën a teg les hommes qu'il faut à la mhm. place qu'il faut pour que commune yi développer les ressources humaines de valeur nekk si conseil municipal bi. puis euh, qu'on les bonnes décisions pour l'intérêt des communes du mais ñu bëri jàpp nañu tey pour nga doon maire parti pouvoir tey sa doon maire tey du yomb yéen ñi ngeen nekk yéen ñi nekk ci euh, parti yu ndaw yi yéen na ngeen di jàngatee dogal googu nga xam te ni ñu ngi ana am analyse boobu daal parce que jàpp nañu fekk parti pouvoir ànd ak ñi nga xamante ne ñoo nekk euh, ci kaw pour yow nga doon maire day jafe. bon bon c'est vrai ah c'est une perception parce que da façon bi politique bi doon doxee euh, loolu la ñu gën a gis. Mhm. parce que je peux prendre l'exemple de Khalifa Sall bi muy gagné nekk coalition Mm-hmm. de, du département de Dakar, mm-hmm. il était dans l'opposition. Je peux prendre l'exemple de, de, de, Macron. Mm-hmm. Il, est, il, a été président, il a été élu président de la République de France. Ce mouvement, Mohamed Dako, créé rapidement, en moins de trois ans, en marche. Ça créé le parti politique. C'est-à-dire, la tendance mondiale, ça faut commencer à dire euh, mettre di laisser en rade les partis politiques nit ñi xam nga lu ñu gëm léegi des visionnaires des leaders yi nga xamante ne ils ont une bonne vision qui qui veulent faire une politique inclusive politique bi nga xamante ne du ñu rek ne homme politique bi mooy prendre toutes les décisions non mm. l'homme politique il comprend que c'est lui qui qui euh, qui qui est à la tête des associations, mais qui inclut tout le monde, qui prend les suggestions de tout le monde, di fexe ba ñëpp impliqué wu. je pense que loolu sa se un élan de solidarité bi nga xamante ne la nouvelle forme de politique bu ñu bëggee développement am on doit tendre vers ça. donc euh, nous on est décomplexé on ne pense pas comme les gens y pensent nous pensons qu'avec notre mouvement si on prend notre temps pour conscientiser euh, la majeure partie de la jeunesse. ñooñu conscientiser seen seen yaay yi dinañ mettre la place qu'il faut xool le meilleur profil surtout. parce que tey la cause de de de l'échec des hommes politiques tey moom mooy da ngay xool ko xamante ne dafa dem ba échoué si projet yu bari jàng échoué aussi amul métier amul liggéey il a beaucoup de temps mu consacré aussi politique topp politique yi après ñooñu ba ñooñu dañ koy bëgg peut-être ils sont redevables du tànn amee ñu ñëw tànn ko def ko député wala tànn ko def ko PCA wala tànn ko teg ko si benn position yoo xamante ne pour récompense politique la mm-hmm. alors que en âme conscience ils savent que amul compétence pour jël les bonnes décisions pour le pays boobaa ay dogalu ñu lay lay exécuter. effectivement mm-hmm. donc loolu tey c' est c' est malheureux. Mm-hmm. je pense que loolu lañ bëgg a changer ñun ñi nga xamante ne nee nañ. am mm-hmm. nañ ay compétences. leer na ma ne ñu mel ni man bëri nañ ci Parcelles Assainies mais malheureusement ils s'investissent pas à la politique te ñooñu man la laay laay dem vers ñoom wax leen ne leen notre responsabilité est engagée par rapport ak lii on n'a pas droit d'avoir des toog di ko jaay dans le privé kese tàgg si jabar jël si oto ainsi de suite bu ñu xëyee dee kenn du ñu xam mhm. ñun dañu war a marqué notre histoire mhm. marqué notre temps mhm. pour que ñu bàyyi suñu génération ci yi euh, ba des yi nga xamante ne dinañ si mën a sukkandiku bu mën a ñoom amee am esprit de patriotisme quoi yaakaar naa loolee tamit mbokk yi kàddu la am solo ah, parce que ni ñu ko waxee rek jeune la ndaw la bi ñu ko toppee ak léegi yaakaar naa laataa ñu toog ak ni dinañ def tuuti gëstu si moom mais ñu xool ko bi nga xamante ne tey yaa ngi soogee dugg ci langue boobu mën nañ gis ni âge bi bëriwul âge bu bariwul yaa ngi ci duggee à l'âge de 32 ans sa première euh, jongante tey ci wàllu meeru parcelle tey nekkoon en 2014 jongante boobu tey nan la def ci ndaw jeune boo xam te dafa bugg rek ñëw bouleverser songu li nga xamante ne tey ay kilifa ñoo fi nekkoon ci kaw loolu nu mu defoon ci jeunesse bi. waaw mon histoire mon histoire atypique parce que mm. man suñu famille kenn mosu si def politique. man j'ai été quelqu'un de de suite. maintenant mm. koo sax donc mosuma bokk si ay syndicat dama doon daaw fanaan foofu dama doon wàcc rek ñibbisi mhm. donc j'ai reçu ce genre d'éducation là d'accord mhm. mais en fait dafa am quelque chose qui a créé un déclic parce que passé SN la dëkk en 2007 2008 je pense les élections j'ai assisté en tant qu'électeur xool mhm. comment ça s'est passé et tout on était très jeunes on n'a pas on n'avait euh, pour nekk candidat mais on a observé nga bi Demba Moussa Sy doon doon xëccoo d'accord en 2007 et 2012 beaucoup de choses sont passées on est comme on est des des aussi am loo xamante ne na si ñun engagement xamuñu lan moo waral loolu nag mi en tout cas y a eu un déclic nga xamante ne tax na ñu jóg di engage wu di wax ak suñuy morom et puis tamit dafa am loo xamante ne c'est important ma koy jox conseil si ñi nga xamante ne ils veulent s'adonner à la politique dans l'avenir temps passé moom mooy def ton présent. et ton mm-hmm. présent moom mooy déterminer ton futur. ton futur mm-hmm. d' accord à dire boo nekkee xale aussi il faut ngay def li nga xamante ne dinañ la si xeeb. Mm-hmm. parce que tey boo man bu nekkoon koo xamante ne ku xeebu laa wala ma def loo xamante ne. si samay mbirum temps xale. ñun suñu Sénégal dañu toll foo xam ne dañu lay jàppal loolu. duñu jàpp ne non il avait 15 ans 16 ans moom muy def loolu 18 ans non non même bu nekkoon fexeel ba nga am kersa te nga nga nga nga mucc si yenn yi c'est-à-dire moom mooy waral tey boo xëccoo ñëwee di xëccu benn mbir. Mhm. kenn du ne ah kii waru ko def ainsi de suite. Mhm. du dëgg mhm. donc tey tam ñu tam suñu présent ni ñu comporté woo moom mooy tax ñu moom mooy déterminer ëllëg suñu suñu futur cest à ñu bëggee xëccu beneen mbir ëllëg nit ñi dañ ne ah kii kat bi mu tollee tel defoon na li ci lu baax donc il peut aspirer à tel tel tel. juste pour wax la nekk bu ma engagé en politique c'était à l'âge de 30 ans. maa ngi doon liggéey si benn banque de la place donc euh, di dox bu mu wàccee liggéey dugg si koñ yi waxtaan ak jeunes yi di leen sensibiliser di naan leen ah en tout cas commune bi ni ñu koy gérer doxul di sensibiliser en tout cas di xool domaine de compétence yi sport éducation santé di xool lan moo si doxul parce que jusqu'à là les hommes politiques moom moo ñoom ñoo doon diriger du dëgg donc si noonu lañ créé mouvement bi en 2012 2014 ah affaire bi commencé la mayonnaise a commencé à prendre mhm. ba l'envie jël ñu ne ok pourquoi pas ñu dem tester suñu bopp ci élection locale yi. def lu kenn deful lu bees. Mm-hmm. bu xoolee bi ñuy dem euh, defuñu benn coalition ànduñu kenn ñun kese la woon. Mm-hmm. on n'avait pas la prétention ñu dem rek directement gagner mënul nekk. Mm-hmm. parce que mënoo fekk ñoo xamante def nañ vingt ans trente ans ñoo xamante ne c'était dinosaure politique. nga ñëw un jeune de 32 ans qui sort de nulle part. qui n'a pas les nga ñëw rek gagner ko. mais on avait le courage en tout cas de nos idées. d'accord on avait le courage mooy ñu dem ba defar suñu liste dem déposer ko sous préfecture porter suñu liste mhm. malgré les difficultés ba élection yi dem ñu am si plus près de 1000 voix mhm. c'est-à-dire euh, parti yu mag yi nga xamante ne ba si fa Demba Dia boobu ñu ñoo ko jiitu woon jiitu ay Mansour Sy Djamil ainsi de suite mhm. donc après nag on est ok on a un discours porteur euh, la jeunesse et attentive à à ce qu'on dit pas ñu profiter seen aubaine ñu mm-hmm. gën a façonné loolu mm-hmm. c'est-à-dire defaraat discours bi nga xamante ne nañ si mën a dimbale mm-hmm. les jeunes donc loolu lañ moo si dugaloon mais euh, depuis regretté wuñ ko parce que de plus en plus les jeunes sont décomplexés dañu démystifier l'homme politique parce que homme politique aussi moom mooy jaamu askan bi kese d'habitude suñu homme politique yi dañu doon nekk sur leur piédestal nekk si benn hauteur xam nga ainsi de suite alors que ñun on est naturel on est jeune comme comme gars yi bu ñu Euh, président Macron recevoir ñu wala Macky Sall bu ñu génnaatee on reste nous-mêmes. Mhm. loolu la ñu soxla si homme politique et je pense que loolu mooy le euh, euh, nouveau type d'homme politique bi bi Sénégal soxla pour pour développer ou quoi. Mhm. donc loolu côté boobu loolu la amoon lu ma si lu ma si wax. Mhm. côté boobu loolu nga amoon loo ci sànni mais yaakaar naa ni nga ko waxee rek parcel moo la ñor. parcelle mooy sa base tey bu ñu la doon defloo bilan parcelle bi nga xamante ne yaakaar naa 11 ans yi nga xamante ne monsieur le maire Moussa Sy toog na ko ci bopp parcelle bilan ni tey moom la Sénégalais bëgg si leeral bilan bi noo ko noo koy defee. le bilan n'est pas moom a pas à chercher de midi à 14 mhm. yu bëri j'ai essayé d'interpréter ça. Mhm. xam ñu fekk bi muy ñëw par. Euh, délégation spéciale fii la ñu fekk ainsi de suite maintenant yow en tan que jeune mois en tan que jeune quest a vu de concret en tant que réalisation en tant que investissement si si commune bi mhm. je le vois li fi dekk si développement si commune bi yëpp borom kër yi ñoo ko fi def c'est-à-dire borom kër yi ñooy wuti seen alal ñëw mhm. tabax mhm. te dëgg donc euh, lenn lañ fi gis loo xamante ne le lu le revendique je le salue au passage monsieur Moussa Sy moom mooy pavage bi Tabac bi c'est un projet de de, de l'État par la ville de Dakar projet PACASEN ainsi de suite donc euh, bi euh, si si si li ñuy defee réalisation yu bëri d'accord euh, mais en fait il faut que ñu ñu ñoom après ñu comprendre ne le le rôle du maire c'est pas seulement d'attendre tout de l'État xaar ay dotations collecter des recettes par-ci par-là dem ci marché yi ODP mm-hmm. ainsi de suite occupation voie publique dajo ut recettes yooyu après 75 pour cent 70 pour cent yi dem ci fonctionnement bi. Mm-hmm. investissement bi quasi nul parce que da ngay am déficit. Mm-hmm. ainsi de suite c' est pas c' pas intéressant dañu bëgg ay hommes politique yoo xamante ne ils ont une vision large de la mm-hmm. commune c' est à dire dinañ mën a teg ay ay ay plan planifier def ay stratégies yoo xamante ne dinañ mën a investir ci commune bi d' accord y' a y' a y' a y' a beaucoup de leviers yoo xamante ne mun na nekk quoi. donc léegi bi ñu ñëwaatee si si si si bilan bi. Mhm. juste pour lui que comme ni ma ko waxee le bilan n'est pas du tout bon. Mhm. tey à la place de Moussa bu nekkoon am na conseil il va pas investir sur une piscine bu nga xamante ne ba léegi piscine bi c'est pas praticable. Mhm. da dëgg jël ay près de 90 millions dugal si benn piscine si centre alors hôpital bi amul rajo amul scanner. dem rek sama benn xarit bi mooy wax ne ma je pas am na. am na ku fi andi rajo. Mm-hmm. si si centre santé bi. Mm-hmm. alhamdulilah mais pendant tout ce temps là Parcelles Assainies amul terrain de football. Mm-hmm. hôpital bi amul rajo amul scanner. Euh, rajo municipal bi tëj na yéen ñi nga xamante ne yéen ñuy si biirum média du dëgg école municipale bi nga xamante ne c'est seen idée la woon pour dimbali néew doole yi tëj na le centre mauvaise gestion centre euh,